ñu mhm. euh, Covid bi jaar na fi xawona ndax mbir mi mhm. euh, sponsor yi xawona daw ak mais dafa melni amna benen élan bo mhm. euh, talent yu le retour de Zarko mu ngi chapitre bi a intéressé sénégalais trio bobu dox de Modlo l'actuel roi des arènes Boynia ak je pense que ci indi bu am mais l'actuel président du CNG dañ ko reconduire pour huit mois ñu ne est-ce que loolu euh, mënuñu ci jàngatee ni Bira li ñu ko may fi mu toll nii ci ci ci mandat am. Mm. Euh, juste pour defar fédération la. Mm. parce que ministre euh, ministre Yankoba Diattara daf ci insister. Mm. ba muy tabb Bira en tout cas ba ñu koy renouveler li nga xam ne mooy mandat am. te de lutte faw ñu am ko. jàpp nga ne ci huit mois yi nga xam ne moom la ñu jëm war nañ ko mën a togg ba loolu aboutir. manquement yi bari na xam nga des fois dama naan làmb dafa xaw a naqaree waxtaanee. Mm-hmm. ñi nga xam ne ay technicien la ñu comme ñoom Pape Sané ak ñoom Cheikh ñu nekkee ay technicien ci football mooy il faut que ñu mën a tenir benn langage de vérité ñi ne ci kanam pour que lamb mun dox cette CNG là manque de caractère c'est ça le vrai sens mënuñu téye yëf yëpp non non non dañu manqué xamul ndax euh, dañuy décider lii tey ñu hmm. coowoo ko ñu deltu gannaaw décider waat lii bëgg décider waat lu gën a pire je te donne l'exemple Euh, comment Papa Sow Siteu bi tëggkatu Siteu bi jiili xaañee Papa Sow dañu ñëwoon Siteu su amaatee combat tëggkatam boobu du dugg ci stade bi mm-hmm. la CNG euh, man la CNG était catégorique sur ça mm-hmm. parce que y avait une blessure mais bi Siteu di def sorteem mm-hmm. dafa ni sama tëggkat bu duggul bu ñëwul stade du bëri

ci temps de préparation hmm. mais attends Boy Niang 2 Balla Gaye 2 dépassé nañu plus dañ leen amaan ci xaalis. Zarko Ada li ñu dépassé seen temps matul ñu bëgg leen ak un ba pare amaan leen. mais après Boy Niang 2 ak Balla Gaye ci la loi boobu wàcc tamit. non non non non. loi boobu xoolal règlement Non, par rapport à une suspension de 5, 5 mois à 3 ans. Non, non, Moussa. Après Balagay, Moussa. Euh, en plus des suspensions financières, je pense bien. L'amour du football, nid qui mounio ko sanctionné deux fois. Mm-hmm. Mais un jeune leader comme Arafas là ne mérite pas que nous ayons un an mais ana ana ana ana Ada présentement. Ada moom dafa dem lune de miel lune mais après combat bi la takk jabar. waaw mais si nous am na droit góor la man bi may laajee dama ni parfaitement am na ci euh, droit. non non mais mais CNG bii ñu yor dafa manqué caractère c'est vrai moi j'ai l'impression que président bi le président brésilien Sène moi baal ma. Mhm. mooy dafay nekk nit ko junni nopp mooy bu kii ñëwee wax ko mën a ok. Kenya wax ko mën a Kenya wax ko mën a okkee boole lépp bu ko ba tax na kon jàppoo ni mën nañ tabax ab fédération. ci 8 mois yi nga xam ne moo def ci mandat si si mën nañ ko tabax parce que lamb mais là c'est l'affaire de tout ça. Mhm. lamb Sénégal bu ci né ba ci maire bi nekk ci bop koñ bi amna na lu mu ci xam. Mhm. mais mais mais buñu ko buñu ko def une fédération de monarque moy kiko jité japp ni bour la. dama mës dénoncer ce comportement là.

du ma sàmm du ma dem ba. Hmm. maanaam daal nañ ko yaatal. ba ñëpp bokk ci gis seen bopp nañ ko yaatal comme ni ñu woon yaatal bu njëkk ba. Hmm. ci séminaire ba mais ne pas élire des gens yoo xamante ne que euh, dañ leen élire rek ñu yore des postes yoo xamante ne que ñett yor maanaam c'est des gens fantômes. Hmm. duñ leen gis benn réunion CNG faroon nañ fi yëkki nii. faloon nañ fi Mame Ndao Tyson faloon nañ fi Aziz Ndiaye. Mhm. faloon nañ fi keneen ak keneen mais bu réunion <laughs> loolu amee jëm ci lamb si doon gis. Mhm. alors pour ponk bu euh, soxal également les amateurs de lutte très rapidement euh, mooy coow li dox diggante Modou Lo Ama Baldé ak Boy par rapport ak combat royal bi dégg nañ ci ay version yu ne. Mhm. tey jii dañoo bëggoon vraiment voilà vraiment terme bi moom dafa diis sax tey très rapidement pour nga tënkal ñu ko pour quand même euh, nit ñi xam lan moo nekk ci biir ak euh, voilà quoi lan moo nekk ci biir combat royal waa Pikine loolu la ñu bañ a dégg buñ ma saaga nag mais dëgg la non kenn du la saaga da ngay da ngay da ngay waxtaan ak sénégalais rek gis nga Moustapha ñu daanalee foofu rapidement voilà sama saaga uh-huh. euh, le lutteur Ama Baldé est en détresse loolu mooy dëgg maanaam dafa jàq guddi yuñ toll nii par xamul uh-huh. la il faut faire le tour de de génne ko ci trou bi mu nek sinon carrière dina yàqu li may wax ni mhm. maa koy wax ça fait 3 mois bi ma njëkkee ne Ama balé su ci dañ ko coup d'état ñu ci bari comprendre ñu won li ma wax mais Moussa defal configuration diggante Ama Modou Ama balé nak la mën signer ben contrat. Mhm.

Mais un champion comme Aman Baldé, un grand lutteur comme Aman Baldé, ne mérite pas de rester 4 ans. Mmh. C'est un problème. erreur staff technique là, loolu mooy dëgg. maanaam dañ leen dañ leen wër ndomb ci contrat dañ wër ndomb ci contrat boo xam ne xamuñu naka la dama wax dama ni est-ce qu'ils ont pris le temps. Mhm. da xam yan clause ñoo nekk ci biir. contrat bi ak aboutissant yi. waaw mm, balaa ñuy surtout les clauses. xam mm. nga contrat dafa am ay clause am ay sew sew am ay porof ndollu. est-ce que tey Ama Baldé mii kat. adversaire la Modou Lo <laughs> uh-huh. blessé na. Mm-hmm. est-ce que Modou Lo bu blessé. Ama am na droit jël benn combat mais est-ce que Modou Lo amul droit jël benn combat li nga xam ne c'est un coup d'état. Mm. un coup d'état par imam yaa oustaz.

mbir la. man buur ma hmm. toog ne. ak loolu tamit analyse bu pertinente la. sama xalaat. Hmm. mooy Oustaz ne veut plus lutter ak ama ak Ama. xanaa la amul contre expertise. non def nañ contre expertise dafa blessé des souris musculaires la mais moo loolu temps bi ko Ama may xaar ko moo du xaaru ko temps boobu. ok donc la lay teg ca guddi dafa ni non maa ngi bëri mais gëmuma nekk sax sama kom ak Ama Baldé dina gaaw xanaa ci kanam. Hmm.

dem na ba utiliser ben baat ne dof la dénigrer Jules Baldé mi magu Ama Balde donc je lisais sur le discours de Modlo ben benn dégoût quoi quelqu'un qui n'a plus envie. maanaam dafa dem ba bëggatul. bëggatul bëggatul lan lan moy avantage Modlo Lo mu bëreeg tay euh, mais mok Boy Niang plutôt que euh, Ama Baldé. mais bima né avance Boy Niang ñu daanalee foofu ma ma libéré sama sama gars avance Boy Niang. Ah. day dugg kër avance Modlo Lo day dugg kër de Gaulle. te combat bi. Mhm. nee naa gars yi sot na à quatre vingt pour cent ku ne naan du am du dëgg. Ama Baldé lu mot loo war a bëreel tey waaw dafay bëreeg moom ba pare soo ko bëreeg Boy Niang non non non ko joxoon couronne bi teg Ama teg Boy Niang ko ciy jox. mu jox ko Boy Niang mu jox ko Boy Niang. c'est évident. donc te mhm. Boy Niang aussi d'accord sur le côté moral peut-être. Mhm. ñaan ñi mën na jàpp ne que. mu Moussa damay xaabaabal de Elage damay am ñaari minutes. damay damay non non non am deux minutes. may ko may ko ndax li ma wax la soxla. non li ngay wax dafa am solo sax. deux minutes laa may ko deux <laughs> <laughs> euh. ni mu toll. Mm-hmm. Ama Baldé mën na toog quatre ans bëriwul. war a nekkaat ci indisponibilité six à sept mois.

donc la faute à qui la faute c'est à oustaz donc Boy Niang mbër la comme dama ni woon couronne bi amoon na opportunité dugg biir Pikine jaar ci buntu Ama Baldé mhm. sottiwul Boy Niang est là mhm. mais xam Moussa par le problème bi ne mhm. si Boy Niang devient le nouveau roi des arènes que va faire Ama loolu tam beneen problème la te ñoom ñaar mënuñu bëri seen biir jërëjëf Moustapha Moustapha yaa ngi dégg du ñu bëri seen biir ba ilaa yu mi mais damay daanalee rek Chili li faalaay wax bërki dem ci benn live Instagram faalaay Baldé numéro 2. Mhm. c'était un cri de cœur pour moom. Mhm. un lutteur comme Ama Balde. millions yi jaar ci loxoom Ama tey patrimoine am te mënoo ci génne ben terrain bu moom c'est catastrophique. Mhm. donc man appel bi ma doon lancé lay lancé le le promoteur Makan Mbengue peut donner à Ama Balde, plus le trois avance, ou quatre comme il l'a fait avec Balla Gaye 2 alias mais mu xool ci yan lan lay dugg ak yan anam lay signé contrat mais mais damay ñaan toujours hmm. wax naa ko waa population Pikine qu'il aide ce gosse là ce gosse est un joyau de l'arène hmm. Ahmed Ama Baldé ne mérite pas de disparaître hmm. donc na ko waa Pikine def benn bloc autour de lui revoir son staff parce que c'est a un contrat wax ne am staff. Et ci staffam staffam bërki dée mi réunion nañu fait une sortie ne jox nañu feu vert Boy Niang pour mu bëreeg Modou Lo pour que Pikine bañ a diviser wu. Mm. mais son manager Abdou Bakhoum bi wax il a festisé cette sortie là. Mm. donc am na réeroo daal ci biir am na réeroo. Mm-hmm. mais ci li ma jàpp. Mm-hmm. ba gëm ko. Mm-hmm. mooy oustaz mii may gis Modou <laughs> bëggul bëreeg Boy Niang. mais na def waaru énergie na attention <laughs> euh. na def ci Boy Niang. c'est un dernier il est le dernier des samouraïs. maanaam mën na foog foofu lay nooyee. mu gën faa yàlla bu mu daw xal. faf tàbbi ci sébbu. ndax ki ko daan deux fois Balla Gaye 2 alias Cukkuli. Boy Niang mi ko ko daan. am na solo te loolu. mais mais ki ki daan Balla Gaye deux fois mu doo boo ko daan mu Eumeu Sène. waaw d' accord. mais te mu te mu bis. non mais attends attends génération yi du bari. pour pour ñu daaneel foofu rek on parle de Eumeu Sène et de Boy Niang. les générations ne sont li muy bëree. baax na ci kii kii dumbal mbër borom bi pexe la te jàppal sama wax ji. borom Moodu. kii borom yi pexe la. en tout en tout cas débat baa ngi noonu je pense que ni euh, waxtu bi quand même moo ñu xoj bu baax a baax a baax te sama gars yi vraiment euh, dañoo.